que ñu ngi toog di xaar suñu émission bi nga xam ne Thiès ca kanam euh, la tudd muy le rendez-vous du développement durable pour un Thiès ca kanam pour un Thiès meilleur donc sans plus tarder vous l'aurez certainement compris euh, waxtu julli bi nag moom mënuñu koo fàttaloo sañuñu koo faat ba koy fàttaloo mm-hmm. kenn rawatina suñu kilifa yi rawatina sëñ Mortala mi nga xam ne moom la ñëpp di xaar et sans plus tarder damay bàyyi sëñ Mortala Njëgën euh, suñu xarit suñu wasila suñu lépp. suñu buntu ci kër njegéen suñu buntu ci sëñ muniru macha allah rek mu nuyoo ñaanal ñu ibbi waxtaan bi rek bu ko defee ñu mën a wéy cheikh bi ñu ngi lay jaar ba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu seydi mouhamad badji bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala sayidi al ambiyaai wal mursalin سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سيد محمد نيومي لي نيو دي لا زيارة ان تانك فرير ان تانك دومو باي ناخ سيرن منير ووتلو لا ام ني مجور waye tamit en tant que ko xamanteni ño bokkon ben classe ma sha Allah xamna ni yoyep beugatul sax ñukoy wax waye loolu la yalla euh, <laughs> dogal mm. tamit ñu partager يو bari ñu am ay souvenirs tamit yu rafet yu baax ndax un homme épris de justice. Hmm. musul nangu benn injustice macha allah nit ku dëggu ku baax macha allah te loolu c'est des valeurs de notre euh, cher Casamance macha allah. Hmm. yàlla yàlla euh, barkeel. di jaar ci yow aussi di nuyu sa technicien yi nekk ci ginnaaw. Hmm. di la jàppale di nuyu tamit euh, kilifa kër gi Haj Pap Dumbuya waaye nuyuwaale tamit ñi fi nekk yëpp di ay journalistes ay reporters. Euh, commercial bi ak tabarakallah présentation bu mm-hmm. Mm-hmm. rafet bu neex bi ma won ci mm-hmm. euh, local technique bi prestige ci lepp li fi nek nga xamanteni vraiment euh naa émission bi moom émission deuk bi la way émission tamit euh, groupe prestige là. vraiment c'est un modèle de développement. un modèle de d'abnégation de pugnacité. de courage surtout ndax lii yëpp mënoon ko investir ci leneen waaye tabarakallah ñëpp di ci mos di ci barkelu yëpp di ci muy jeunes yi muy jàngkat alquran yi mm-hmm. yi formation bi ñuy jaay ndox ñuy jaay gerte euh, journaliste yi mm-hmm. ñi nekk ci école de formation yi allah man daal vraiment je suis impressionné <laughs> te maa ngi ñaan yàlla mu gën a te di ñaan yàlla jotaay bi ñu am mm-hmm. aussi mu nekk jotaay bu am Mm-hmm. ku ko déglu rek soo fi jógee daal mm-hmm. yokk nga am nga xam-xam wala ubbi na ay brèche daal de réflexion incha sëñ bi de euh, ah baax rek nee na il su waxee loolu dinaa ko comprendre sañ bi euh, daanaka léegi France la dëkk fa lay liggéey euh, donc ku dem France xam ni moom duñu moromu ci wàllum technologie réew mi waaye su waxee ni prestige visite bi mu fi def impressionné ko xëy na Thiès fa mu tolloon il faut le dire Il y a beaucoup d'avancées bu njëkk sëñ bi d'émissions. Euh, émission télé bëggoon ñu une say de say mbir ah boo RTS mi télévision nationale xëy ba télé yi juddoo tamit euh, chance ngay am faire live chance focus sur le gamme. Ah, le jour J après chance dëgg ngay am CRD chance dëgg ngay am voilà appel yi def ak ziar yi ñuy def ñu daal koy filmer waaye ñëpp xam nañu léegi ak prestige ak yeneen télé yi Thiès macha allah benn gam benn ziara du raw kenn rawatina bi ñu jógee Mui le 14 donc voilà septembre bi ñu joggé 14 nga xam ne macha allah anniversaire donc voilà rappel à de voilà euh, maam Alaaji mi nga xam ne ànd cap wërngël këpp macha allah nañ ko à travers Prestige à travers voilà toutes les plateformes donc de la Khadra à travers surtout Safina mui le mouvement bi nga xam mom la fi sëñ bi tek nek le guide spirituel mouvement constitué de beaucoup de jeunes magni nak nag di len dar daal di len fonko machallah allah ñuy def des progrès dans voilà li nga xamni ne xam nañ ko autour de la khadra autour de ki nga xamni moy mooy sunu chance muy sëñ Mounirul Khalifa tay ni sëñ bi tey xaqiqa la waxtane waxtaanee. waaw tey li tax ma tam xaqiqa ak ak ak ihsaan mhm. muy lu lu lu lu lu lu yéeme lu lu jafe waaye tamit lu yomb suma ma lu yomb sama bop la koy waxe moy euh, man jafewoon na ma loolu ma comprendre xaqiqa fii Sénégal niñ ko jàppe woon mooy euh, màggal sëriñ màggal goo xam ni sax day day rëy loolu ci ki nga xam ni xëy na yarewuñ ko yaru mm-hmm. am wasila topp ci ginnaawam man loolu lu ma daloon la parce que du ma ko nëbb fenn ibadur rahman yi jamantina waa rawatina waa jamaatu ibadur rahman di leen remercier au passage parce que la formation de base bi ñu def ci man mënuma leen ko delloo muy formation bi nga xam ni kitaabullahi wa sunnati rasulihi ñun des fois nag ma amoon problème comprendre xaqiqa li tax ñu jël sëriñ si teg leen foo xam day yéeg jéggi dayo lool. Euh, voilà sëñ bi ñu bokkoon classe comme ni ko waxé au lycée Malick en 2003 lañu amon do bac maak mom ben année lañu def lycée Malick 9 mois lañu def lycée Malick way waaye bi il m'a fait comprendre moy mooy ci du ci wax nak ci jëf la. parce que lycée Malick Sy bi dañ ma koy balancer hein, je fais un peu une jeunesse lo xamné mënul ñàkk ci.

bu njëkk ay xaritam ñu ko gën a jege dëkk kër maam El Hadj miin ko jàppee ko sëriñ xam ko ñoo ko doon wuyu ñu dem ba ci biir mbooloo mi bari lool lycée Malick Sy récréation en 2003 en tout cas bi moom laa gën a fekke mais ngay gis mbooloo wër benn nit muy wax ci diine sama sob sama curiosité tax may approché à chaque fois da daan wax li islam ni mu méttee woon ba ñu ci njëkk a ñoom su ma yaa Ali Imran di wax ñooñu nga xam ni seen gëm a tax ñu rey leen reyu ñaaw yooyu Bilaal mi ñu jël xeer boo xam ne tol tol na lu yéeme teg ko ci dënnam yooyu la doon wax bu noppi di expliquer xaqiiqa muhammadiyen euh, ak ci explication boo xam ne man mën naa comprendre luy xaqiiqa parce que daf ma ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam est ce que xam nga ni bi saxaab yi dañu daan fekk muy jàpp ndox moomu muy jàpp ñu koy jël muy tis seen loxo ñu koy mar mu leen di faj di leen faj contre contre lépp luy mën a faat muy jàngoro boo xalaat est ce que xam ne ñaqu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxaabi dañ daan jël mouchoir di ko fomp muy xeeñ misk di xeeñ euh, parfum boo xam ne ajjana la jóge man quand il m'a expliqué ça ma xam ne loolu aussi jàng naa ko kon maa ngi comprendre lan mooy xaqiqa donc man tu bu ma wee aidé ak comprendre cela su ma demee yow sa kër dañ mortal dama koy waxee ne secret bu mu am la bu mu rawee ñu bari waaw loolu bu may sañ naa ko wax bu toogee ak way juróom tànk sëñ Muniru day tege ci ci ci poojam mu koy maase loolu image boobu lu ma ko fàtte mu première fois bi ma toog sëñ bi ama fa boobu sëñ baa ngi feebar lool ngay waxtaan ak moom ñuy waxtaan di kaf nga téye yow daal maa ngi xool chaque fois nga jël tànk sëñ bi di ko dàmp bon ma ne kii way jur nee nañ boo ko bootee sax mu wër kaaba gi te safa marwa fayoo ko ma gis sëñ bi def loolu te man sama way jur jege ma loolu xëy na mënuma ko question mënuma ko mooy lan tàmmaluñu way jur yi tàmmaluñu loolu te amul ñu nekk seen wet di leen damp di leen bés di xol lu ñu def ma gis señ bi ni mu wàccee boppam suufé lool ci kanam way juróom mu mu impressionné ma ma man sama papa ni ma mel ak moom lii mosuma ko defal te macha allah señ bi xam naa ko li muy def ñi def ma yéem li ñu toog ci néeg bi yëpp moom tànku señ bi la téye di ko toppatoo ba ni ñu génnee néeg bi mu yéem ma may comprendre aussi lan mooy xaqiya parce que yiw mi wut foofu moo tax macha allah gis nañu xam nañ ko ba muy gone xam nañ fu mu toll léegi xam nañu mouvement bi mu tek muy reuy di yaatu aussi euh, li tax xam nañ ko parce que way jur mooy lépp te li ñi wax am nga ngërëmam wa lolu daf ñu leer te yow yaay suñu buntu señ bi la nga fi bawon mu ngi fi donc euh, témoignage bu ñuy def la nañu ko mu ñu ko ñak baña def parce que suñu sëriñ lañ togal bu ñu daano leer tamit nañ ko comprendre wax ji mën bari xeyna du du norme télé du norme télé waye suñu lepp lañu togal ñu gëj gisé lool parce que téléphone safina whatsapp facebook mo no yomb sama mom, ak mom xeyna ko ñaanal mu dem ñaan gi bu soté day sonal boromam señ mënul chaque fois loolu loolu lay yobanti ci ñaan gi mu ñaanal sotti mo tax mu may gëjë a gis macha allah doon cheikh bi haqiqa xaqiqa nañ ci ñëwaat pour nit ñi comprendre ko mhm. ñu terminer ak euh, ihsan ihsan ñu waxtane ñaar yi nga xamni dafa jafé lool ñi ngi diko dundu mu am lu mat ak lu dess lu làqu euh, lu feñ ñu bala rek macha allah nga nga def na nga daan def waaw jërëjëf jërëjëf Badji <laughs> macha allah macha allah euh, tu es très fort tu as tu es parvenu en quelques minutes à nous replonger à euh, 16 ans en arrière. Mm. presque plus même Nous allah ñoo au lycée Malick Sy. Mm-hmm. Euh, bâtiment A. Mm-hmm. jotaay yooyu. waxtaan mm-hmm. échange Yoyu, journée du parrain <laughs> mu ngoog wasifa yooyu <laughs> xadara yooyu. macha allah euh, débat yooyu. nga ah. xam ni dañuy Sogo, a def philosophie. philosophie match ñu commencer am liberté d'expression, de mm. euh, di di di di di euh, refuser di résister. Ah, ah. tabarakallah gaay ñi ci bari nek ci mouvement de jeunesse politique bi tamit c'était était bouillonnant moment boobu. Mm-hmm. yëngatu yi bari na ci ci dëkk bi. Mm-hmm macha allah donc man foofu laa sentiraat sama bopp nii mhm. yàlla seddeen loolu mhm. kontaanaat bu baax wax yi nga wax tamit non la demee parce que mhm. nit tamit mooy sànq li may junj rek c'était pas pour jeter des fleurs mais y a des valeurs yoo xamante ni ben, lu ñuy donn la lu ñuy jëlee ci askan lu ñuy jëlee ci famille ah, nit ñoom nitu ko lër lañu keroog bi ma ñëwee ba yóbbu ko ci sëriñ bi te boobu sëriñ bi daf def feebar bien sûr waaye bi ma ko waxee valeurs yi nekk ci moom ak jikko yi ma xam ci moom mu recevoir ko ci néegu biiram waaye keroog boobu ba tey jii hmm. tabaarakallah mu ngi jàpp kóllëre googu ba tey jii njëgëneen yëpp ku tudd ba Mouhamad Badji rek tudd nga njëgëneen ku tudd njëgëneen tudd ko moom it loolu liggéey bu garaaw la yal na yàlla barkeel amiin yaa rabbal aalamiin euh, donc pour ñëw ci euh, question bi nga posé hmm. nga xamante ni question bu am am solo la te euh, moom laay wax toujours ñun léeg-léeg du ñu toogee ca France di débattre ku nekk day wax ni mu gisee jamono yàqu-yàqu yi danger yi am les crises qu'on a et tout cela mais man toujours duñ ñu dama len wax né man dama japp né le plus grand danger bi ñu am ci aduna fi mu moy euh mhm. mhm. ah, mooy ñak xam wa moy euh illettrisme anal analphabétisme mooy euh, manque d'éducation. moy mhm. euh, obscurantisme. wa kay mimétisme suivisme wa singisme. waaw ñun héritagisme ñun yooyu moo sonal mooy yu bëri dañ ci c'est des choses qu'on a hérité effectivement am na ñu for ñu am ñu jël mais dëgg-dëgg xamuñu dëgg-dëgg loolu mu doon moo tax sooy suñu jàngee alxuraan ba pare dañuy jàng laxdar yu laxdar yu li ñu njëkk a jàngal mooy awalu ma yajibu ala almukallafi tasxiixu imaanihi waaw مسوغ اندي تما معرفه ما يصلح به فرض عينه بامو مو اندي بنن ريغل تامن بو ام سولو بو خامتيني يوي دون ريسبكتي سونو ادونا دنا باخ سونو الاخر دنا باخ موي لان ولا يحل للمكلف ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ان شاء الله كيسك جو بدير بار لا داني مكلف ليكو نيكا وار موي مو ييسل غموم ان شاء الله وات داز ات مين لان لان موي ييسل سان غموم موي غموم da nga koy qui mhm. est du juddoo de Muhammad, sant Badji. Mhm. mais euh, il est il est né musulman. ses parents sont musulmans. Mhm. on l'a éduqué Bilal la jàngee ba euh, gindeeku dem lycée Malick dem CM dem lycée Comme l'islam c'est un islam d'héritage c'est un islam familial. c'est un islam bon presque euh, entre guillemets imposé. mais à un moment donné il demee ba jox la des capacités cognitives des capacités de réflexion, de discernement, des capacités euh, pour faire la part des choses léegi nag moment am nga moment boo xamante ni nag war nga dem ba àgg ci maqaama bi nga xamante ni moom la wax nga ag ci aynul yaqin aynul yaqin nga nga deug deug dëgg dëgg ci xaqul yaqin parce que jóge nga ci ilmul yaqin dem ci aynul yaqin dem ba ag ci xaqul yaqin dem ba ag sax ci maqam bi ñuy wax yaqin incha dinañ ci ñëw légui dañuy du mooy répondre ci mhm. question bi nga posé moy mhm. euh, nga dem ba am certitude né mhm. même sama papa tay ji duma ma ko fekkloon ci li ma nekk dëgg gii ma gis suma ko gisee dina nangu deug gi koku koku moy premier euh jullit julit moy yàlla yalla ko yalla defal certitude beneen bi moy lan mu ne jullit warta engagé wu ci ben débat wala ben situation wala ben domaine lu dul ne daf ko maîtriser moy wala taqfu ma laysa lak bihi ilmun bi alaq wax ci alquranul karim qu'est-ce que je veux dire par là moy lélé da ngay dégg ñuy wax terme bu melni islam iman ihsan haqiqa tasawuf sharia batin fanaau baqaau ma'rifa saxqu maxqu dawqu mongok usul mongok sayru xawaatir xaatir xadaraat Azalat, Abadat, Up euh, azal abad mhm. mais c'est des termes mais c'est une terminologie soufi c'est un c'est un jargon mhm. soufi comme fini ni nous amee jargon mhm. nga xamante dit nous jii TGP euh, mais yow mi xamul lui TGP mais da nga qui euh, émission RTS la <gasps> wala mu GP suñu GP mais technicien il vit duñu GP. Ils un gros plan TGP très gros plan. ak yeneen terme un terme technique télé télévision ak communication. Soit des métiers médecine dañoo am scalpel. Mhm. am sonné EMG suñu céphalée am na lu muy signifié. mais xam nga mot de tête. céphalée tête jargon. soit des métiers euh, domaine mënti dem. Mhm. dafa lexique jargon. mais soufi aussi dañoo am jargon am lexique. que évoluer ci euh, domaine. Mhm. il faut que nga xam mot bonnet, lan moy valeur sémantique lan moy sens kon moy yi nga wax ni moy haqiqa mhm. ñoo ñew ci haqiqa ba ngay bala ngay introduire ci ihsaan mhm. euh, pour tënk pour être simple moy mhm. dafa am lu ñuy wax le vrai la vérité ak la réalité la réalité moy lan moy la vérité de la vérité wala la le vrai du vrai loolu la ñuy wax réalité mooy mbir mi li tax mbir moomu di di loolu loolu mooy xaqiqa uh-huh. mooy dëgg dëgg mbir mi lu uh-huh. laxasu ca biir di nga gis benn projet wala nga gis benn mbir uh-huh. wala nga gis benn affaire buy dox nii fekk Mouhamad Badji yow mi xam da nga naan ah non j'ai vu ceci gis naa fi benn affaire diw yor na oto diw yor na nangam diw yor na nangam mais Badji mi xam xaqiqa bi dina xam ni lii xaalis drogue la Mm-hmm. loolu mooy xaqiqa mm-hmm. wala mu ne déedéet loolu financement la mm-hmm. fee la jóge wala déedéet diw moo nekk ci ginnaawam mais kooku dafa dafa wut mais diw moo nekk ci ginnaawam loolu mooy xaqiqa mooy dëgg dëgg mbir mi lan la bokkut ak li nit ñi di yëg bu dee politique dafa am politique bii nekk ci mbedd mi ak li ñuy wax réel politique réel politique réel politique mooy lan gars yi du nekk ci plateau yi dañuy xuloo di waxante di <laughs> saagante suñu paree ñooy bokk lekk di bi suñu paree ñooy bokk lekk di bi waxtaan xool nan la ñuy séddoo réew mi loolu mooy réel politique bokkut ak politique bii ñu def ci débat bi ni àdduna tamit ni mu àdduna ci boppam dafa am dafa am li ñuy wax sunnatallah yàlla dafa wax ci alquran ne walan tajida li sunnatillahi tabdilan wala tajida li sunnatillahi tahwilan dafa am les lois divines mhm. yoo xamante ne ñooy gouverner monde bi nga xamante ni moo tax asamaan toog fi mu toog te daanuwul moo tax suuf toog fi mu toog te pëtaxul moo tax ja ngelaw li di daw nii te kenn gisu ko te ñëpp xam ni ngelaw ngelaw la mhm. moo tax géej gi am équilibre cosmos bi mhm. cet équilibre bi ci ne les trous noirs yi ñuy wax les mhm. galaxies les constellations cette harmonie bi am ci àdduna bi am ci diggante monde bi ak monde yi ak mbindeef yi. même ñun li nekk ci suñu biir ci ay globules blancs ay globules mhm. rouges ay hémas ay euh, potassium. cellules et tout ça cellules yi ci mhm. nekk euh, li ci dox yépp loolu li koy li koy li koy gérer dafa am réalité bu nekk ci ginnaawam. Mhm. waaw mooy loolu euh, Einstein waxoon ne am na. am na un être supérieur bu ëpp doole boo xamante ni mooy handle li anglais di wax handle hmm. mooy doxal mbir yi moo koy moo koy gérer loo gis nag dafa am xaqiqaam du du diine rek moo am xaqiqa xam nga loolu moo tax soo jàngee jawharatul kamal hmm. ca fin ba di nga dégg ñuy wax allahumma salli wa sallim ala a alxaqi allati hmm. tatajalla minha urusul xaqaiqi urusul xaqaayiqi hmm. xam nga jamu ba hmm. xam nga uh, xaq jamu mooy xuquuq hmm. xaqiiqa jamu mooy xaqaayiq bokkul <laughs> lee xaq bee mooy droit d r o la mooy les réalités c'est-à-dire foofu Cheikh Tidiane radiallahu anhu moo ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bi moo ko dicté Cheikh Tidiane moo ko wax ne ko maam man jàng naa la ci téere yi am na nu ma la xamee gars yi am na nun lay waxtaane mais xam naa ni maam yow leneen nga macha allah mu ne ko dafa mel ni daf ko wax ne ko dama bëgg a xam dëgg-dëgg yaay kan macha allah maam ji ne ko nag déglul ma ma fite la fite ci wolof mooy dicté moo tax jawharatul kamal min imlaa'i sayyidil wujud c'est une dictée venant d'une plus noble des êtres le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko waxal ne maay aynu rahmati rabbaniya ياقوتة المتحققة الحائطة بأمكنة بمركز الفهوم والمعاني نور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني جفا بلومك اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق يلا يلا نجي جولي تي سلمل ci jëm ji nga xamanteni ci mom la yalla samp trônu xaqiqa yëpp allahu akbar ba di tay dañuy waxtan de na sha allah wa dañuy waxtan tay <laughs> ah mo ngok mu ne ko yalla nga julli ci jëm ji nga xamanteni moy mhm. siège u haqaiq mhm. yeb ma sha allah dafa ni suisse moy siège banque yeb mhm. so demee fu melni luxembourg wala belgique institution yu mag yeb moy sen siège so demee fu melni new york siège yu mel ni ONU ak yu mag yu mel noonu yëpp mm-hmm. mooy seen siège mm-hmm. kay yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam Cheikh Tidiane daf ko wax ne ko yàlla yàlla nga julli ci ki nga xamante ni moom moom jëmmam mooy siège u xaqaa'iq yëpp xaqiqatu as-salaa mm-hmm. moo nga ca yonent bi xaqiqatu siyaam حقيقة الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقيقة الزكاة حقيقة الحج حقيقة البر حقيقة التقوى حقيقة الإيمان حقيقة المعرفة بالله حقيقة لبل باخ تي أدنى رياليتي با ترون بوبو نور بوبو مونغا سامبوتي دنو يونتي على محمد صلى الله عليه وسلم كي مونغا ياكرنا كون يفاني بغلا كون لو غيس تي أدنى دا فا أم ظاهرام ني mooy loo xamante ni doo ko xoolee nga nga gis mhm. comme par exemple li ñu jàkkaarlool muy mur bii nii mhm. mais mur la mais mur bi du mur mhm. ay briques yu ñu boole la boole la mais brique euh, briques yi du brique ciment la ak suuf bu ñu boole dégg nga li bëgg wax ciment bi euh, euh, ciment bi ak bi ciment bi dafa am fu ñu ko jëlee ca usine ba am na nu ñu ko defaree ba mu nekk loolu tey ji ma woon benn ingénieur dina la wax ciment ci la lañ ko defaree ok kon brique bi doo ko topé da lay yóbbu ci xaqiqaam nit yàlla yi nag ak góor yàlla yi ak aarifina billah ñoom lépp lu tegu rek yàlla da leen di dimbali ba ñu mën a découvrir xaqiqa loolu loolu nag nit ñi leen duñ ci mënta mën a accès loolu moo tax kooku soo waxee ne par exemple euh, euh, euh, nit mën na fii léegi par exemple ne fii dafa ay microbe mm-hmm. mais ñun à l'œil nu mënuñu ko gis waaye du indoon microscope wala microscope yu bees yi nga xamante ni ils sont mm-hmm. super puissants su ko sànni fii léegi nga gis microbe yi di wallax wallax yi comme ay fas yuy daw mm-hmm. mais kooku bëtu zahir bii mënu koo gis effectivement microscope moo koy mën a gis microscope mooy gis xaqiqa xaqiqa tamit bi ñuy wax loolu ci wàllu àdduna la mais ci wàllu diine tamit xaqiqa du bëtu zahir yi ak téere zahir yi mhm. ak njàngum zahir mii moo koy joxe déedéet dafa am yeneen ay ay ay lunettes à vision nocturne mhm. yoo xamante ni li koy jox nit mooy ragal yàlla mooy jaamu yàlla te sellal ko mooy naafilu guddi mhm. mooy yàlla di di di wéetal yàlla ba yàlla ubbil la mooy mbóot moom yàlla wax ci sóoratu ca fin ba yàlla nee na wattaqullah wa yuallimukumullah jàng ragal leen yàlla yàlla xamal leen yonent bi nee na soo xamee jëfee sa xam-xam te sellal ko yàlla xamal la loo xamante ni ñi hmm. jàng ba xam te jëfewuñu seen xam-xam sellal ko ñoom du ñu am xam-xam boobu xam-xam boobu nag moom la ñuy wax xaq xam-xamu xaqiqa moo tax ngay toog ak nitu yàlla muy gis loo xamante ni moom mooy li fi wax sax mag dina toog ci suuf di gis hmm. loo xamante ni xale day toog ci kaw te du ko gis kon ci tënk hmm. euh, loolu moom la ñuy wax xaqiqa léegi nag pour bala ma lay jox kàddu gi pour wax la rek léegi nag loolu li muy nekk nekk une réalité moom réalité boobu am na ñu bëri dañuy profito ci haqiqa bobu nak di diko manipuler diko utiliser mhm. à des fins yo xamanteni yalla geureumuko gërëmu ko yonent gërëmu ndax ci la ñuy dëgg di daganalu lu di arama lu dagan au nom de la haqiqa or haqiqa mënta di mën mënuñ tagale act ak sharia ndax haqiqa mhm. en mhm. réalité c'est une Sharia pratiquée do pratiquer ce Sharia ba mu rafet li ci judd moy haqiqa Hatekakom, c'est un résultat, c'est un, c'est une finalité, c'est un mongok ben ben ben résultant tout mhm. pratique le ak jëf ak sell ak sellal

tijaan non noonu laayeen yi maanaam xeeti euh, tarixa bu ak association religieuse ak spirituelle bu Amon lycée Malick Sy waaye ah euh, euh, sëñ Mor Talla moom moom dafa nekkoon koo pour ne ko nanguloon et je pense que journée du parrain lycée Malick Sy moom ba nga fa nekkee moom ba ba ma Ah, dotul amat parce que bobu laa njëkk xadara ci ci ci voilà bobu ba légui defaatuma ko nak bobu laa njëkk xadara ci ci mbalan ah te koku gëm ni bo amul ijaza do ma toklo ci lo xamni ni jëlu ba mhm. waaye dalal nga ma ba ma tok mhm. wa di allah allah ba la ilaha ilaaha mënu ma ko àgg mënu def parce que force bi gis ngeen koy defé j'étais très jeune mais ba ma ba ma demee ba ànd ak yéen ngeen di laa allah allah di di kii ma sentir loo xam ni man sama dënn mënatul dem ma comprendre que ni ah paa yi ngay gis ba ngay nekk xale ba léegi ñuy ñuy allah ci jàkka ji <laughs> du force physique. dëgg la non du force physique. waaw ah, parce que boobu gone gu la voilà. <laughs> 19 ans 20 ans moom yaakaar naa ne war naa mën a def 2 heures de temps di wax du ma du ma du ma sonn. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye bu ma defee quinze minutes xam naa ne allah ji ñuy wax <laughs> du caaxaan. moo boobu ba léegi macha allah ñu jàpp. Ah, ñu jàpp donc sëñ bi ah, fii dañoo baaxoo dem journal 20 waaye comme bugguñu ah, ci ci wàllum xaqiqa rek ñi nga xam ni tamit xëy na télé bi journal rek leen ñor hmm. bugguñu aussi trahir leen moo tax bëggoon mën naa ñaan ñu dem au de 20 heures hmm. waaye ñu xam ni ci ixsaan gi ñu jëm motax tax bi dañ koy dans dans 5 minutes lay amar rek ihsan gi motax tax te su ma ko ñaanee borom kër gi daf ma koy may technicien yi may mako parce que xamnañu dañu tardé te tardé gi du lén aussi sëñ bi mënul fat waxtu sañu sañu ko sañuñu ko ñu ni tamit mënuñu ko sañuñu ko sax quoi moo il fallait que ñu julli def suñu ñaari ràq sooga nak ñew tok ci plateau bi loolu la yalla diggal te audience yalla mo ñu gënal audience euh, bo gis sëñ bi dañu dem ci ihsan rek plateau mom da ngay ñëwaat balaa nga ñëlu France bu sobe yalla <laughs> dag ma wax France Euh, pratique islamique là-bas parce que am na mës nga mës nañ ci waxtaan. nga mën naan jàkk yi foofu. heure normale heure heure régulière yi nga xam ne du du du du ajjuma mhm. du tabaski li muy am ci mbooloo jàkk Sénégal yi du ko am foofu dañuy wàññi France dañoo bàyyi xel islam ba waxtu julli bu ne jàkk bu ne France ministère de l'intérieur am na ku leen fa toogal di wàññi mhm. ñi fay julli ñaata lañu France moom ma nga woon digg Paris defe naa jamono jooju di ma wax seen jàkk ay deux cent personnes julli julli yi julli yi dëgg la julli juróom yi rek dernier julli ba ma julli deux cent trente personnes waaw nag loolu loolu jafe na fii de loolu moom deux jafe na ci kër diine yu bari seen jumaa yu mag yi jàkk yu mag yi ngay enregistrer autant de monde de fidèles

di juum wala di def noo xam ne violence la wala di fayu dañ ko gis ci ci espace médiatique sénégalais mm-hmm. kilifa doomu kilifa diine des fois mu mer ba waxee noo xam ne da ngay tiit tooñ wala accusé wala tudd nit tudd wax loo xam ne danga nga naan euh, kii nan la mën a bokkee fii waxee nii man loolu dama ci am problème effectivement dama ci am problème waaw nit koo xam ne da nga bokk fu sell ak luñ la mënti def yaakaar naa ne bu bi ngay topp yonante bi muñ na sallallahu alayhi wasallam. sallallahu alayhi wa sallam muñ na loo xam ne benn yonante muñu ko te yaakaar naa ne ñaanu xaas yi nga xam ne yonante dañ ko am yonante yi maanaam ku ci mës a ñaan nga ñaan ngoo xam ne yàlla da la suñu maam ibrahim lañ lañ koy njëkke bañ ko tëmbalee ca xalma daa ñaan waaw ci barke yonante bi xal ba sedd yaa naa rek nii barke wa salaam yonante yàlla Moussa ba mu ba mu ba <laughs> ñu baal ñu ko daa xarloo ah yonent yàlla Isaa moom yàlla da ko këf rek yóbbu ca kaw ñu yem foofu mhm. waaye yonent yàlla Muhammad rek moo daj loo xam ni ba mhm. deretam nar a toq mhm. waaw Jibril ñëw maanaam yàlla yàlla sa daa gëdd Jibril lii nag kër ga lañ koy foree waaw sëñ sëñ xalifa ba toog moom yàlla da ko naan gëdd jibril gëdd jibril ne ko dawal <laughs> na wax li mu bëgg a deretam buy toq mooy boole ñaari montagne ndeysaan ndeysaan waaye muñ loolu mm-hmm. ne nang leen jéggal parce que seen ndigg yi dina am ñoo xam ne ñoo may mm-hmm. gëm mm-hmm. kon yonente bi ñaanu xaasam googu xam naa ihsaan lay def rek ñun ëllëg ñun ñëpp ummati ummati gi macha allah macha allah macha allah sëñ bi kontaan nañ jërëjëf macha allah kon ihsaan waaw ihsaan euh, donc moom i terme bu am solo la donc euh, en principe xaqiqa euh, li moom ci boppam xaqiqa li koy jur. Mhm. mooy ihsaan. macha allah donc finalité wu ihsaan la. Mhm. ihsaan bien que am na problème bu rëy bu ci nekk moom it temps bi amul. mais mhm. euh, ma dañ koy firee nu nekk ñii dañ koy firee bienfaisance ñii di ko firee spiritualité ñii de di ko. di ko di am na daal nu ñu koy firee lu mm, bare bare mais mm. daal firi bi ci gën a am solo daal mooy li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam mm, ndax lislaam moo ko firi xadisu jibril xadis boobu ñëpp xam nañ ko wala mm-hmm. xadisu omar boobu mooy ki ko dikkaloon noonu ñëw teg ay oomam ci kanamam laaj ko ne ko lan mooy lislaam lan mooy iman lan mooy ihsaan comme mm-hmm. ihsaan nga laaj ñu dem ci ihsaan mm-hmm. directement yonent moo ko wax ne ko al ihsaan an taabud allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka na nga jaamu yàlla kon ihsaan jaamu yàlla la an taabud allaha kon euh, li ma bëgg a foofu mooy ñu bëri jàpp na ni ihsaan ay concept la ay wax la philosophie la ay diil la ay teg la ay wax yu jaxasoo la loolu lañ jàpp ne xaqiqa ak ihsaan loolu la mhm. yàlla yonente nee na déedéet an taabudallaha kon jaamu yàlla la ibaada la ibaada la waaye nag nan kon façon bi la damay wax gars yi daan nañ ma laaj ne ma sëñ bi luy ihsaan man leen ihsaan muy in mhm. in waaw anglais anglais quoi in waaw déedéet ah, in wolof ah in ah. waaw eh, l'islam moo lay mhm. ne la waxal bismillah inshallah l'islam moo lay jàngal julli mhm. jàngal la ne la juróom la ñeenti rakk la ñetti rakk la juróomi rakk la ah, nii ngay raxasoo nii ngay defee waaw moo lay jàngal woor heure bi lay tàmbali heure bi lay jeex lay ne la fukki fan la lañ koy ak lañ koy mais lay façon bi mhm. kon du la Juli. julli julli yin la lay jàngal. mooy dooy julli relation yëg-yëg bi ngay am sa diggante ak sa borom loolu la ihsaan di jàngal. Mhm, mooy tasawuf ba tey benn la rek. Mhm. waaw mooy tazkiya tamit ba tey. Mhm. moo lay jàngal woorin pas woor. woor fiq a koy jàngale. ajin mooy ki dem màkka ak ki aji màkka. ihsaan mooy jàngale loolu. dooy saraxe mu jàngale saraxe yin Mm-hmm. nga wuute kii def nii mm-hmm. ne lu ma dara daal dana dal samay <laughs> njaboot joxe ko ihsaan moo lay jàngal saraxe win mooy nga saraxe mm-hmm. ngir yàlla mooy inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi dalika umirtu wa ana awwalul muslimin loolu mooy ihsaan mooy nit ki lépp lu muy def mu defee ko comme si daf koy def ci kanamu borom bi soo demee ba mënoo am maqaama boobu nga jàpp ne moom yàlla moo ngi def muraqabaam ci yow mooy ar ki nga xamante ni Euh, amul ben baat wala ben yëg-yëg bu dox ci sa fibre xol ah ci sa veine jugulaire bi nga xamante ni moom moo relier ton cœur et ton ton cerveau amul dara luy dox ci diggante boobu mooy say sentiment ak say xalaat lu dul ni moom yàlla loolu toq na ci moom ba pare. Mhm. yëg-yëg boobu ku koy dund euh, balay yàgg. Mhm. Ah, dina am ay xam-xam ay. Mhm. gis-gis ay yëg-yëg ay. ay mbir yu la dikkal léegi nag yoo loolu nag. moom mooy. Euh, mooy feeñ sa mooy jeexintal ci comportement bi kay mooy nga gis nit nii euh, euh, après muy nekk ci loolu nga gis ko yëg gis ci kanamam loo gisul woon su waxee ak yow nga yëg ci moom loo yëgul woon mm-hmm. du doo leen waxante dara mu wax la ci loo xamante ni euh, même aaya bi ngay jàng mu jàng ko mm-hmm. mu am jeexital bu amul jeexital yow bu sa bos amul mm-hmm. même aaya bi ngay ñaan def ko fukki fan ak juróom moom mu jàng ko te jeexul yàlla nangul ko ca loolu ihsaan la

mooy lépp lu xamante ni bu yàlla bëggul nga def ko nga waxtu ko te soxlaatoo hmm. kenn di la waar wala di la wax waaye dem nga dem ba nag yonent bi nekk sa sa xarit nekk hmm. sa dëkkandoo hmm. nekk sa ki nga xamante ni dootoo tàggoog moom ba yow sooy def sooy wax sooy teg sooy teggi sooy bëgg sooy bañ looy mënti def rek day mel ni yonent bi mooy nekk sa coach mooy nekk sa kilifa mooy nekk sa mantoor di la waxloo di la defloo di la dindiloo loolu mooy dëgg-dëgg ihsaan loolu nag liggéey la c'est un travail boo xamante ni mhm. dafa am ay niveau am na ci loo xamante ni soo jàngee téere yi xam ko di nga ci mos tuuti di nga am un début de ihsaan mhm. waaye nag ihsaan dëgg kenn mënu ko am te àndoog ñii nga xamante ñooy góor yàlla yi mhm. ndax ihsaan dañ koy roof ci nit dañ koy def ci nit da ngay ànd ak ku ko am mu pikiir la ko euh, perfuser la ko def ko ci yow par les pratiques par le dhikr par le comportement bi bi nga xamante ni moom lay dund di la ko wàll

voilà Ihsan euh, des fois damay am problème avec les maximes ak une euh, phrase mm-hmm. nul n'est parfait mais la perfection n'est pas de ce monde. man dama mm-hmm. koy bañ. yow ñoo defandoo philosophie. xam nga ni ma meloon nak <laughs> monsieur Thiam suñu professeur philosophie. voilà madame. <laughs> li yàlla rek laqad xalaqna al insana fii ahsani taqvim summa rada xëy na summa la yàlla bu la nag rey la nit ci la forme wala la plus parfaite ah. foog suñu nee forme sax du jëmm ji rek quoi ah, comportement lépp lu war la parfait rek intérieur extérieur voilà donc bu tubaab nee nag nul n'est parfait wala la perfection n'est pas de ce monde ça me pose problème et ñu gis ñu fëgg seen dënn ñëpp nangu leen ko ne ñoom def nañu zéro faute hmm. musuñu mooy suñu borom suñu maam alaaji maam alaaji bokk ci hmm. ah voilà gudd fan lool waaye taxaw taw fa na mais tund bii ma nekk ku ma fi tooñ rek na ñëw waaw maay man nangam ak ñu bari wax ko wax ko fi aussi ñi ñi nangul leen ko parce que sénégalais yi du ñu ay dof su ñuy raamal ay sëriñ su ñuy daw seen i ndigal di bàyyi seen i tere ah te ëpp sëriñ yi ëpp lu wuñu leen donc am na lu tax sénégalais bokkul ci ñiy dox ci àdduna voilà ñi ñuy dem màggal Tuubaa barki démba ñii nar a dem gàmmu ñëpp mënuñoo réerandoo mënul nekk c'est pas possible sëñ moomu leen mm. sëñ Mbay Si Mansour moomu leen waaye ihsaan bi ñu gis ci kër yooyu mag ñi mm. sàmm ko teg def ko legg muy legg bu transparent muy legg boo xam ne macha allah dafa parfait mm. tey moo tax ñi ñi di di di daw mooy li ma wax très souvent ñi dañ ma naan euh, sëñ Muniru moom ñëpp xam nañ mooy sëriñ waaye ma leen du sëriñ comme ni ngeen jàppee ñenn ñi ni ñu jàppee sëriñ mm-hmm. euh, mën naa toog at bi ñaari yoon la may gis wala ñett wala urgence dëgg sama kër buy bu naree tax <laughs> moom <laughs> fa waaw <laughs> ah, bu dëkk bi naree yëngu dëgg dëgg moo jote kilifa dëgg jote gi nag du dara du bëgg a cees mm-hmm. ci moom xam na ni ci la may ci la may may may gis mhm. donc sëñ bi ihsaan gi rek moo tax mhm. ñuy bàyyi émission bi dañ ah, koy doon ah, borom kër gi may na ma ma continuer waaye ñi nga xam ne journal bi da leen ñor war na nañoo xam école école Petit Thialy gi ba xam seen i doom dana jàngam de parce que bi daa fees del ak ndox ak i ñax ba léegi ndox maa ngi fa ñooñu di xaar ba xam gouverneur jaar na fi ndax dañuy décider ibbi classe yi de loolu aussi farata la c'est important waaw ah, talabul ilmi farata donc moo tax sëñ bi ah, da doon nuyoo si ah, visiter kër gi rek ñu profité rek ci occasion bi def ak moom émission macha allah mais mu ngi fi ba après gàmmu incha allah daañu xool beneen yeneen table ronde yeneen waxtaan yeneen émission ak moom incha allah bu ko defee ñu waxtaane islam pratique hmm. au niveau de la France hmm. en Europe ak euh, différence dina am solo lool voilà loolu moom dama ko bëgg parce que gis naa ñu bari ñi ngay tuubal mm. ñu bari ñi nga xam ne yaa leen jox wird te xam naa ni loolu ijaaza bi ñu ci am ak taxawaay bi ñu ci am aussi xam naa ne luy prospérer la mm. et nous avons koy seetaan bu à travers safinatul fuqara ilallah la page facebook bi nga xam ne ñëpp mën nañ ko léegi page bi nga xam ne du bàyyi dara njëgeeneen sëñ bi sa dernier mot rek ñu daal di def ihsan daw ci jàkka ja rek bàyyi journal ñëw Bati mm. en tout cas c'est un plaisir de te revoir mm. Masha'Allah, euh, en forme vraiment avec euh, l'expérience mm. euh, l'éloquence ak dëggu gi comme d'habitude comme nous ma la en 2003 et puis c'est un honneur aussi mm-hmm. de participer à cette émission mhm. que je suis depuis depuis Paris mhm. macha allah et puis ñëw ci kër gi aussi mhm. découvrir fii gis fii loo xamante ni wan wane ni

daa am nu nu fonkee sëñ bi tey miniature bi ñu def ci vidéo YouTube bi boo dee xool dañoo jël directement sëñ Mourou te loolu man waxuma leen ko borom kër gi wax leen techniciens yi dañoo miin loolu bu ñu invité us sëñ xalifa ku ñu fi invité nga bokk njëgeen rek miniature YouTube bi dañuy jël sëñ sëñ Mounirou Khalifa tey rek daal di ko ciy def moo ne ci miniature bi ñuy gis noonu ñu xam ne loolu ah mi kër gi dañ ko miin lépp lu laal njëgeen rek moom lañ ci jiital ñoom itamit lépp lu ñuy def moom lañ ci jiital maa ngi fàttaliku ba ñuy gisee boobu xat-xat yu metti ah, jóge ci yu doy waar <laughs> waaye amoon mënoon nga maa joxe ñan tegtal ma waaye da maa yóbbu ci ci kilifa gi muy wane ne ñoom kilifteef ga ñu am nangu ko di ko doxal moo leen di may macha allah martaba yi parce que nag euh, man li ma wax joolaa te booy cees laa gaaw ma gëm nit waaw <laughs> ah, gaaw ma gëm nit parce que da nga may won ihsaan won ma iman Ah, tane ma ci lu bari ma soog la soog la topp te loolu gis nañ ko ba nuy gone lii lycée Malick ku fa toog ñëpp génn di ndékki nga naa leen kaay leen wuyu yàlla oh. kaay leen wuyu yàlla maanaam ñëw leen déglu li waxi yàlla du samay wax loolu la doon def daawa daawa yombul ko taxaw fenn di woote kaay leen nga mel ni ñi ñi yaa leen gën a gëm ñi di la xool murid di la xool naan waa kii moom lu ma yaakaar waaw moom loolu doon def li sa maalis mu metti woon jamono yooyu noonu c'est l'air mm-hmm. de de de de Abdou ñëw xalaat yu bees politique bi Thiès commencé jël beneen mm-hmm. forme ñuy defaraat Thiès pour nga taxaw di déglu un jeune au lycée Malick Sy bu la waxul foyer de jeunes bu la waxul leneen ak leneen di sol nii rek la daan solo nag mosuma gis mu mm-hmm. ko changé sëñ Euh, maa ngi fàttali ba ñuy def devoir aussi li ma li ma fonk gën a jàpp jaaxle ci jaaxal ci yow sëñ bi devoir bu ñu ko doon def julli waxtu julli jot 5 heures day génn dem julli ji jouru bac sa bokkuñu saal mais biir na ma ni te wax nañ ma ko ni dafa bàyyi épreuve yi dem julli ji loolu moom da cee xulloog ay professeur sama kanam ba tàyyi waxtu julli moom du kenn amul kuy tax mu bàyyi ko te loolu ñun ñii di jullit nekkoon jullit ak moom ah bu ñu sëggee suñuy devoir moom <laughs> waaye pour nga bàyyi devoir nan da ngay def ñeenti rakk saa yi dina jafe mais moom moom loolu moom professeur yi bari jéem nañ ko ci tànce waaye mënul ci moom dara ndax

important tey nga nekk juriste di nekk Paris di fa liggéey mhm. ak dëkk bi nga xam Paris doy na euh, France doy na waar muy réew boo xam ne ancien ancien réew colonialiste la réew boo xam de mhm. lu bari dafa tumuranke ci comportement waaye islam aussi di fa jël une proportion bu yéeme waaw ah, islam voilà di di di fa dox en tout cas on va revenir sur la pratique donc de l'islam euh, à Paris en France inchallah avec bientôt voilà sëñ Mortala Ndiéguène donc voilà Ami du monde gens de bien donc voilà di profiter di leen souhaiter donc bon gàmmu après lundi la ñuy tasewaat bu soobee donc voilà nañu dem ak jàmm dikk ak jàmm ah. ñaani yi dal ak jàmm macha allah sunu way juri sunu maam yi sunu xalifa yi xolofaaw yi yàlla ba leen fi gudd fan ak wér ñu yàgg di gunge macha allah ci tawfeex ak tey si aywa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.